doomu Jalaaw maa ngi lay nuyu bokk nga ci ñi nga xamante ni ñoo gën a impacté ci yëf yi parce que sa diggante yow ak ki nga xamante ni mooy booy Niang numéro 2 Maguette Seck bokkoon nga ci combat boo xamante ni li ci desoon bariwul euh, affaire bi ñëw ban yëg-yëg nga ci am ak noo ko gisee. waaw 17 jours ah mën naa nuyu sénégalais yi sax de passage nañ ma comprendre rek mais 17 jours moo desoon si combat bi affaire bi ñëw fekk na li ñuy yoroon yëpp def nañ ko si làmb ji ñëw ba léegi bàyyeeguñu moo tax man li may wax moo ne. àdduna réew moo gis dafa am ay jàngkat am ay bërikat am ay fubalkat te bërikat yi ak fubalkat yi yëpp ci dëkk bi lañ bokk du question que ne jàng mi rek mooy doxal dëkk bi parce que ñëpp mënuñu jàng kon tey ñun bër yi ñi nga xamante ne ñoo nekk ci làmba ji di si bay suñu waar te xam nga sonaluñ kenn ñaanuñu kenn war nañ ñu mën a delloo suñ cër. loolu dama koy lancer appel boo xamante ne si état directement la jëm man doomu jalaaw maay wax loolu di wax ne nañu gestu làmba ji parce que làmba ji dafa am impact bu rëy bu muy def fii ci dëkk bi te li mu fiy doxal bari na te joxuñu ko cër te dañ kaa war a jox cër parce que man gis naa ne jox nañ ku nekk wàllam si corona bi mais gisuma lu ñu jox lu ñu jox làmba wala luñu defal làmba loolu amul fenn te làmba amul lu ko gën a dox fii ci Sénégal man de gisuma ko kon nag war nañu mën a jox jër boobu delloo ñu ko xam ne ay doomu sénégalais ñoo ne ci làmba ji te ñoo bëgg a doxal làmba te ñoo siy séentu aussi ay teraanga